feneen moom lañ bëgg a indi fii Sénégalais yi duñu ko nangu loolu mooy lan mooy nit ñu am doole ñoo xam ne ñuy doon ay lobby ci waxin man noonu laa ko gisee am seeni milliards ndax di liggéey pétrole bëgg pétrole bii nga xam ne gis nañ ko fi te 2023 mu door ñu ne non nañ ñëw jaxasee euh, suñu réew mi pour mën a jot ci pétrole boobu ñamal ci ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñooy seen faire valoir après téye suñu réew mii meral ko ni réew yeneen yëpp loolu ñun ci suñu analyse jox nañu loolu culture violence lañ fi bëgg a indi menace la pour stabilité réew mi culture violence boobu parce que attention nit ki li ngay leble njortan ne moom rek lañ lay fay donc ci spiralu violence lañ bëgg a teg mi te loolu Sénégalais war nañ ko moytu ndax li nga def ba jot bien que xam naa ne ñoom duñu jot ndax sénégalais yi yeewu nañu du ñu mu jaar ci violence en tout cas duñu jot duñu jot mais bo joté won ci violence mais keneen ko soxla li nga yor violence lay taxawal lu tax bëgg moom mu indi la euh, opposition bu service pourquoi kon da fay bëgg a comme yow mu bëgg doon Sénégal bu nekk ci jàppal bàyyil ba kañ te ñu ne yéen ci yàlla musal donc voilà pourquoi ma ne mmh. c'est une menace pour ce pays c'est pas que dama nekk catastrophe catastrophiste c'est pas que nekk demande non damay seetlu di def analyse am lu may jàngat am luy way wut aussi ci ay ci ay ci ay ci ay information donc dama japp né opposition bi nekul opposition bu républicaine opposition bi menace la pour réew mi man loolu la gëm ci contexte bi ak lima gis mais lu tax ba dara ma wax loolu yow sa liste baaxut bu doon da ko santaane sa adversaire moo ko def nga ne waaw yaa def nga nangu ne baaxut nga ne baaxut waaw mais il faut mu jaar mais loolu mooy lan moyen lan laa wax loolu mooy jaay doole loolu génn na sax démocratie fu ñu mujj waaw léegi dañuy dem élection daañu woon sax ne kàngam yi bien dem demuñu ah ñi tegu ci ñoom daañu woon nit ñi ne ñoom sax mën nañoo gagné boo analyser li ñu mujj waxaat finalement xam nga kon boromam nangu na ne li mu doon def nangu na ne jubut si nangu na voilà donc loolu ay firnde la yu sénégalais yu wara a euh, pour bagn dal en tout cas man li wax rek moy ne sénégalais yi bagn ñu engager leen ci logique gu violence Manam jaayante ak defante ci doole nañu jaayante ak defante ci xel ak xalat ak argument Manam layil la nga gëm bu waxtu joté comme kenn ci ñun du atte mm, sa bop ak sa morom. ñu bàyyi askan wi atte ñu